<laughs> waaw euh, vraiment si sama yaay kontaan naa ci laaj bi parce que ñun suñu programme dafa tëral les cinq piliers le premier pilier c'est l'industrialisation mais ni ñu ko waxee nag mooy ni ñu ko defee depuis l'indépendance dañu koy bàyyi cette fois ci état bi ni moom Air Sénégal moom LONASE moom Sénélec. lan mm. état bi def actionnaire dans les méga régions pour une raison simple gis nga industrie alimentaire ñun am nañ ci chance lool di ceeb di mboq di dugub àll rafet. mais ñu ngi am ay mbaam ay ileer ay ŋoosi loolu dafa xew ci àddina foog ñu bàyyi nag agriculture familiale vivrière mais nag foog ñu dem ci l'agrobusiness bi nga xam ne dafay dundal nit ñi mais Sénégal aurait dû être autosuffisant en riz depuis longtemps depuis 2012 2013 on en avait la possibilité ci kaw état bi au lieu muy joxe ay 3 4 pour cent de budget pour l'agriculture mais mu jox ko 15 20 pour cent de budget suñu amoon semence yu baax intrant mu former nit ñi ñu am xam-xam ñi am xam-xam bitim réew ñu indi leen Sénégal def jumelage ak ñoom d'abord suñu xale yi dañuy dem bitim réew di ñëwaat sans aucun problème dañuy am loolu gis nga nag dans les fruits et légumes Pape Abdoulaye Seck à l'époque qui est actuellement ambassadeur il a fait sa thèse à Dijon j'étais là-bas en 89 sur l'approvisionnement Dakar en fruits et légumes dem laa dégg ne Sénégal am na problème oignon ci màggal gi loolu dafa ruslu alors que c'est des process tellement faciles li ma gëm man mooy l'État doit Sénégal. il a fait sa d'accord ah. Ah. ba ñuy wax auto en riz. kan moo nekkoon ministre de l'agriculture. moom du woon moom est-ce qu'il a ah. réussi. waaw donc mais parce que xam nga li tax parce que le le président. ah mais léegi c'est le président n'a budget. attention parce que attention foog nga jël le budget conséquent def ko ci Sénégal c'est l'État et les institutions qui coûtent beaucoup trop cher maintenant suñu jëloon xaalis bi ventiler ko. dans les ministères muy santé d'abord éducation agriculture et cetera on aurait réglé les problèmes man dama gëm l'industrie pour pour lan mais il y a qu'on réussit Sénégal par exemple du côté de Ranérou on aurait dû avoir en matière de bétail Sénégal waruloon mos a ñàkk xaru tabaski gis naa fa ay gëléem ay nag ay béy et cetera à foison mais dañoo bàyyi des petits éleveurs sans formation sans santé animale sans vétérinaire a gerte gi le Sénégal pendant très longtemps moo jëloon troisième mondial deuxième mondial tomate cerise pendant dix ans on était premier mondial mais ay israéliens nañu jox affaire bi dans le nord de Saint-Louis loolu nag su état nekkee locomotive dans le budget de sept mille milliards ñu jël ci l'équivalent de deux cent à trois cent milliards rek def ko pendant dix ans kenn du xiifati Sénégal ba pare nag suñu xale yi dañuy jàng ce qu'on appelle la technique agricole la technologie agroalimentaire dañuy jàng am xam-xam sawar ci di dem ci salon internationaux di dem ak ñëw am passeport am visa am xaalis am kom moo tax ñu ne la solution de 2024 que Mbow soit président ou Demba Ndiaye ou Maria ou Birama ou quelqu'un d'autre il faudrait qu'on arrive à cinq méga régions gis nga suñu amee les cinq méga régions chaque région dañ koy doter d'argent dañuy def basculement au lieu ñu leen jot les dotations faibles équivalent de cinq cent milliards par méga région méga région bu ci c'est plus que ça c'est l'aménagement du territoire mais en cinq méga régions hmm. ça va cette fois-ci avec le basculement des ressources gis nga su yàlla defee chaque méga nord sud est centre nga cinq cent milliards seulement par an sur dix ans jox ko ko cinq mille milliards suñu doom yi ñooy tabax dëkk bi dañuy nekk ci tool yi tabax immeuble yi def énergie solaire di am passeport di am xaalis di am ay compte bancaire di dem ak a ñëw duñ bëgg a ti fenn mais malheureusement. malheureusement pardon le discours est très non c'est pas le discours je parle de basculement non je parle de basculement. Adama je parle de basculement ça veut dire qu'on a 7 milliards de budget